أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon di dellu si waat ak yéen ci zaatu Ramadan zaatu Ramadan tey ñu si ànd ak benn hadis boo xamante ni ñu ngi ko jëlee ci ku ñuy wax sahl ibn saad an sahl ibn saadin radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayyaan yadxulu minhu saaimuuna yowma alqiyaama laa yadxulu minhu axadun gayruhum yuqaalu ayna saaimuun fa yaquumuun laa yadxulu minhu axadun gayruhum fa ida daxalu uxliqa fa lam yadxul minhu ahadun mbokk yi loolu mooy yaxu xadis bi ñu jëlee ku ñuy wax sahl ibnu saadin radiallahu anhu yal na yàlla gërëm ko qaala wax na ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na inna fil jannati nekk na ci ajana aji nekk la ci ajana daf ko feddali inna aji nekk la ci ajana baaban benn bunt bunt boo xam ne yu yuqaalu def na wax loo ñeel ko rayyaan nee na ajana de benn buntan fa bu ñuy wax rayyaan maanaam loolu mooy turam rayyaan mu ne bunt boobu de yadxulu minhu saaimuun ñi daan woor ñoom ñooy duggee ci port boobu nga xam ne moo tudd rayyaan kon yonent bi nee ajana am na fa benn bunt bu ñuy wax rayyaan ñi nga xam ne ñoo daan woor ñoom ñooy duggee ci port boobu pour pour dégg ci biir ajana yowmal qiyaamati keroog bis penc yàlla bu juisee jaam yi ba noppi mu ne ñu war a dugg ajana ñu war a dugg ajana war a dugg nee na daan oor suñ borom da leen jagleel benn bunt bu ñuy wax ar-rayyaan ñoom foofa lañuy ñuy duggee laa yadxulu minhu ahadun gayruhum keneen du duggee ci porte boobu ku ñoom ñoom kese ñooy jaaree foofa dugg ajana yuqaalu ayna saa'imuun dañuy laajte su boobaa dañuy laaj yéen ñi ana ñoo daan woor ana ñi daan woor ayna saimun ana ñi daan woor fa yaquumoon ñu daal di jóg taxaw présenté wu ah, ñun ñu ngi nii ñoo daan woor woorkat yaa ngi suñu waroon daal di wax ne lan daal di leen digal pour ñu dugg ñu duggee ci porte boobu di rayyaan moo tax mu ne laa yadxulu minhu ahadun gayruhum keneen du duggee foofa ku dul ñoom fa daxaloo bu ñu duggee uxliqa dañ koy tëj ñi daan bu ñu duggee ci porte boobu ba pare dañuy tëj bunt ba keneen du fa duggee falam yadxul minhu ahadun keneen dootu duggati jaaree ci porte booba déedéet ah, am na ñeneen ñuy dugg ajana de waaye ñoom de duñ jaaree ci porte booba gannaaw bokkul ñoon ci ñi daan woor moom mën nañoo dugg de waaye duñ jaaree ci porte booba maanaam ñi woor te sellal woor ga moom ñoom suñ borom moo leen jagleel buntu boobay de rayyaan ñoom ñoo fay jaare dugg ajana kon ajana kan mbokk yi ay degré la ay degré la kon nit ki mën naa dugg ajana ba pare beneen mbokkam dugg àjjana waaye ñu gën a rawante ci ay degré ay daraja moo tax suñ borom bi subhanahu wa taala xamal nañu ci hadis bii nekkat ndekete àjjana suñ borom am na ñoo xam ne dee naa berndeel dee naa berndeel ndegam ñun kat suñu àdduna bii nii gis nañ fi ay bernde ñoo xamante ni ñuy berndeelaate la bu ko defee ku ñu berndeel ak ku ñu berndeelut duñu duñu yem ñu yem ah bari na bu ñu gisee fii suñu ay cérémonie yu ñuy amal fii ci àdduna wala ay xafalaat moo xam diiniya wa xayri diiniya ñu koy amal nga gis ñu jagleel ña nga xam ne ñooy ñu autorité yi nga xam ne ñoo la ñuy eh, invité foofa wala ay ay marabu ay sëriñ wala ay eh, borom xam-xam yoo xamante ni invité lañ leen sa cérémonie booba bu ñuy ñëw ñu jagleel leen seen buntu bopp boo xamante ni fa la ñuy jaaree wala bu ñuy ñëw danañ leen organiser ba ñu ba ñu yegg si ci anam goo xamante ni keneen du am loolee ku dut ñoom. misaal maa ngi noonu ci fii ci fii misaal bu jege baa ngi fii kon loolu bari na bu ñu ko amalee rawatina borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne moom képp kuy berndeel moo la gën a mën a berndeel nee na moo jagleele loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo nangu woon wooteem boobu nga xam ne mooy woor weeru koor daan ko def te daan ko sellal daan rafetal nee na moom jagleel na leen benn bunt boo xam ne ajana ñoom kese la seulement keneen keneen ku dul ñoom nee na du duggee ca buntu booba moo tax mu ne yuqaalu lahu rayaan baaban yuqaalu lahu rayaan bunt boo xam ne ñu ngi koy tuddee naan rayaan kon bunt boobu képp ko xam e ngërmaane suñu borom rek nga xam ne wooraloon nga ko nangu woor gi sellal ko ba mu gërëm la war a dugg àjjana nee yow foofa ngay jaare dugg kon ña fa dugg jaare dugg moom bokkuñu xemuñu ñi nga xam ne jaaree wuñ ci bunt boobu buntu boobu dugg lan dugg àjjana kon loolu mbokk yi lu mat a bàyyi xel la borom baa ngi ñu encouragé ti yeneen baa ngi ñu ti si ci góorgóorlu ci li nga xamante ne mooy jaamu yàlla gii di tudd koor waaw nga gis ni mu ko fetliwaat yow dañu ñëwaat ne la keneen nag du duggee ci bunt boobu kon ñoom ñoom rek lañ ko jagleel mu nekk loo xamante ne lu am importance ndeysaan loo am solo am solo la ba foogoon weesu na ko ndax kii jagleel mooy kan kii jagleel mooy borom bi subhaanahu wa taala borom bi subhaanahu wa taala moom mooy joxe ordre ne yéen fii ngeen di jaaree ku dul yéen xamul droit jaaree fii kon loolu doy na tiranga waaye doy na honoré kon yàlla na yàlla boole ci ñi nga xamante ne ñooy dugg àjjana di jaare ci bunt boobu di rayyaan yàlla mën nañ ko nañu ko yàlla defal ndax mu ñu seetloo tuuti dañu gis beneen xadis mu ngi wax borom bi subhaanahu wa taala mi nga cey wax ne eh, ci lamee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu naan man amana billahi wa bi rasulihi wa aqaama salaata wa saama ramadaana kaana xaqan ala allahi an yudxilahu aljanna nee na képp koo xamante ne gëm nga yàlla gëm yonentum bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa aqaama salaata mu taxawal julli wa saama ramadaan mu woor weeru koor nee na kaana xaqan ala llaahi dafay daal di yell ci borom bi subhanahu wa taala an yudxilahu aljanna moom dugal ba ajana maanaam borom bi subhanahu wa taala dafay koy warlul ajana moom ki def loolu gannaaw gëm na yàlla gëm yonentu yàlla taxawal julli oor weeru koor nee na bu boobaa borom bi subhanahu wa taala moom gar garantil na la ko lan garantil na ko li nga xamante mooy mooy ajana yoo gis ne bu ñu gis demee ci alquran tam gis ne aaya yu bari firndeel lii nii nga xam ne borom bi subhanahu wa taala wax nañu inna lazina amanu amil salati lahum janatun tajri min tahtiha al anharu dalika al fawzul kabir ñi nga xamante ñoo gëmoon yàlla bartan jëf-jëf yu baax yi nee na ñoom de am ajana ñeel na de lahum jannatun tajri min tahtiha al anharu ajana yoo xamante ne day daw sa suufam ay sewnde waaw zalika al fawzul kabir loolu de mooy texe gu màgg zalika al fawzul kabir gis ne waxaat nañu beneen aaya ne inna alladina amanu wa amilu salihati ñi nga xamante ne gëm nañ yàlla te jëf-jëf yu baax yi inna la nudihu ajra man ahsana amalan ñun yàlla de ñu sànq képp jëfu sànq fayu képp koo xamante ni jëf na jëf te rafetal ko képp koo xamante ni def na ak jaamu yàlla te rafetal ko nee na xamal na suñu borom bi subhanahu wa taala dana la ko fay ci nam gën a matee loolu ci ay yu bëri ñëw na ñëw na ci ay yu bëri yoo xamante ni loolu rek lay encouragé si nit ki gëm yàlla te jëf jëf-jëf yi nga xam ne mooy jëfi jëfi topp yàlla ndax beneen aaya inna allaha yudxilu alladina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min taxtiha al anhaaru yuxallawna fiha min asaawira min zahabin wa lu'lu'an wa libaasuhum fiha xariir gisaat mu waxaat ne mooy dugal yàlla dafay dugal ñi nga xamante ni gëm nañ yàlla te jëf-jëf yu baax yi waaw mu ngi gis ñoo yëpp gëm yàlla lay ak jëf-jëf yu baax ndax gëm yàlla jëf yu baax moo ci moo ci te moo ci war a tegee mooy day leen dugal ajana yoo xamante ajana yoo xamante tajri min taxtiha al anhaaru day dox sa suufu ajana yooyu da cee daw al anhaaru ay sewende waaw moom teg ca nag di la limal nag lan lañuy seen comportement si biir àjjana lan la lan la ñuy sol lan la ñuy takkaayoo lan la ñuy lan la ñuy eh, takkaayoo lan la ñuy sol ak lépp mu limal la ko seen comportement ba mu mat loolu yëpp di war wan taar ba nga xam ne moom la ñu am sa gis ne mbokk yi kon hadis bu am importance moom lañ indi eh, euh, mu nekk loo xamante ni borom bi subhanahu wa taala daanaka ko berndelee ñi xamante ni ñoom ñoo doon or ngir jëmmam xam ne comme waxoon nañu ne moom koor moom la ñeexal moom moo koy fayal boppam kon lii firnde la ci li nga xamante ni mooy li ma waxoon moo koy fayal moo koy fayal boppam yàlla na ñu yàlla may di dégg ak topp in uridu ila al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama tasliman kathira subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salaamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin